Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul au Gabon Tawfekh Production di si ànd établissement Mbaye et Frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee màggal Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fallo yow ku réer yaa ko ginde la ilaha la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah waaw Cheikh Ibrahima Fall Lamp ma ñëw waay bismillah am Cheikh la ilaha illallah لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا إلا الله سن شاخال ما يغور سبان يفعل دوتن دامو سن شاخال sa bañ a faal dootuñ daamoo lamp faal baabul muridin jam ñi di ginde lamp faal baabul muridin jam ñi di ginde walaay faal lala na boo soxna bala mam njaay abo daar daar faal njaga لا إله إلا لا إله الله Seynaba Seynaba la mam jaay dimbali ñu ngir jëmi sëñ Tuubaa doy na doy na doy na doy na doy na ngir jëmi sëñ Tuubaa déedéet doy na doy bu ma laal dimbali ma rek bu ma laal bul ma laal bu ma bu ma bu ma bu ma non bu ma laal bu ma laal bul ma laal fenn bu ma laal bàyyi ma rek bu ma laal non bu ma laal bu ma laal bàyyi ma bu ma laal fenn bàyyi ma bu ma laal fenn. lakal fallu yaa muxtaar yaa sayyidal wara alayka salaamullaah يا من ما سلا لك الفل يا مهدار يا زيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلا وانا مبين ما وانا مبين ما ما دام بينا ما يوتيني ينجلي ولا يفعل إلا لا سينا بو سخنا بالا مام جاي أبو دار دار فال جاga لا إله إلا لا إله إلا الله la ilaha illallah illallah Cheikh Bamba yaa demoon géej la ca biir géej ak a la ca gannaaw géej góor ñi doo seen morom Cheikh Bamba la ca biir géej ak a ca gannaaw géej góor ñi doo seen morom lii ma wax dama wóor loo ci xamul danga réer ko gëm ba mel ni Cheikh Ibra Fall ñëpp a Cheikh fa Touba li wax dama woore loo ci xamul danga réer ña ko gëm ba mel ni Cheikh Ibra Fall ñëpp a Cheikh fa Touba sëñ Bamba day woote Iblis di woote ni hee ku nekk ngay wut ku mu yóbbaale moo gaañi naka mu sëriñ Bamba day woote ni hee ku nekk ngay wut ku mu yóbbaale moo gaañi naka mu ku ne ci ñoom ñaar am nga kër te kum jàpp yóbbu këram ku ci wuy saytaane boy dee saw yaram xoyam Sëriñ Tuuba janaay këram Iblis naari mooy këram ku ci wuy ji saytaane sooy dee saw yaram xoyamu nañu wuy ji Sëriñ Tuuba Mbàkke mi aw nitam dul xoyam nga xam ni seytaane mooy noonu yàlla waaye jumu mën a doon Cheikh Ibra Faal ngëm galandinam moo tax mu dëddu àddunay faal fekki na Cheikh Bamba sotti na wàcci aljanay texe Cheikh Ibra Faal daf ni ñu magal jooja la waay Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal ngam kala dinaay faal moo tax mu dëddu woon adduna fekki na Cheikh Bamba sotti na wàcc texe déglul max la ba ndax mu woor ñaar fukki fan weeru koor bisub dibeer la mbir mu woor fal njaga yaara yi pexe gis na ma daaka dama gay mu dane mbiram daa di ca ngoy war na ko Seex Bamba mbër mu rëy sëriñ bana ko foofu xee Maxtaar Ture nga yónni joor yenu ku jëm Mbàkke Kajoor Seex Bamba yónni ko fa buur Seex Ibra topp cay fexe def nii ñu màggal Seex Ibrahima Faal maami sëriñ Sidi Faal baayu Seex Muudu Mustafa Faal yéen koo leen bokkulul maam yéen ko gën maamoo ndax isa jeey fati pendala sukabe ngone jeey dameel de ce dameel de law dameel dameel samba yaaya faal isa jeey faati pendaay la suka be ngoni dameel de ce dameel de law dameel dameel dameel dameel dameel samba yaaya faal Cheikh Ibra Faal isa jeey faati pendaay damel ah damel damel de jëfu njogu damel de celu damel damel damel damel samba yaaya faal ko bokkulul maam yaa ko gën maam allahu kaamilun mukammilun ko bàyyee mu jàng moo gën wax ni daf ma intéressé parce que Cheikhul Khadim man yaakaar ma pour Serigne Saliou Mbacké maa ngi ñaan ko fekk fi teral ko ngir jëmmi Serigne Saliou Mbacké loo bëgg si kaw yàlla suñu borom saako ci bàkki Serigne Saliou dama koy ñaan rek dama koy ñaan kii sama doom la kii doom la kii maa ngi njëkk a jàngaloo kii sama doom la kii sama doom la li nga doom la maa ko jàngaloo bàkki Serigne Touba maa ngi ñaan ci barke Serigne Saliou Mbacké dama leen koy yalwaan ko fekk fii والكون كله له وما حوى الله موجود بغير موجد فإنه موجد كل موجد الله موجود بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يك ذات لا جل جرما man zanno juruman fa abda juruma lam yakku zaatullahi jala juruma man fa abda juruma lam yakku zaatullahi jalla juruma man zanno juruman fa abda juruma لم يك ذات الله إذا لدرما أنت نوازن من فبدا جروه لم يك ذات الله جل جرما جرما من تنوى جرما فبدا جرما jërëjëf ñoo ngi tuub bu baax